Cheikh Béthio jaamu Serigne Saliou yàlla na fi yàgg lool te wér Cheikh jaamu Serigne Saliou yàlla na fi yàgg lool te may nuyoo di jiital di nuyoo bi Cheikh Mountakha Bachir xalif général kullu murid di ca teg Baye Fall di jël nuyoo ba di ko teg ci loxol Cheikh Jëmb Fall di ci teg waa kër Serigne Saliou Mbacké ñooñu nga xam ne lu jun njaagate ñooy njaay di nuyu ñii ci sama ginnaaw toog ci taabal ji di waa kër cheikh bi ñi nga xam ni amoon nañu yéene àndoon ak cheikh bi te yàlla weddi ci anam bu nekk ak ñii fi teew tey ñoo ngi leen di nuyu te di leen sargal di jiital ci nuyoo bi soxna Aida mi nga xam ni mooy jëwriñu liggéey bi moom la cheikh bi teg liggéey bi ci ay loxo kon bu ñu jëlee kàddu war a xam fi ñuy tàmbale kon soxna si ñu lay nuyu te di la ñaanal nga am ndam ci liggéey bi yàgga taxaloo ngërëmul sëriñ Béthio di ci teg soxna Adja jëwriñ universel moom mi nga xam ni itam dafa jiital soxna Aida te dégg gu ma man ndax borom yëf yi di sëñ Béthio dana waxtaan ak man te dégg gu ma patatal bu ñu ko kon ñoo ngi ñaan ànd bi sax ci barkeb Serigne Saliou di ci teg nag nday daara yii ndax ñi ñoo ñu yar sëñ Béthio ci ñi ko xamul ci dëkk bii la ganee àddina bu ñu doon wax cosaanam fii la boobee kër Samba be la Samba Lawbe këram a ngi nii jarbaatam bu ñuy wax Matar Diop di jarbaatub lenxeem donn dëkk bi ak njabootam a ngi fii Matar Samba Lawbe am nu mu demee woon ak kuli mi nga xam ne moo jur mooy way juru Cheikh Béthio kon Cheikh Béthio bu ñu yemoon tey ci digg ci bis bii di sant rek ndax fii mu ganee àddina benn point la ci ni ma ko waxee mu ànd ak ñii ñuy suñuy ndey daara ñu ngi leen di ñaanal yéen tamit ngeen yàgg fi te bañ a wuute daray sëriñ bi sëriñ Béthio nag boo ko doon tagg ci cosaan dañuy wax ni Bambi Caam mooy way juram soxna si micro bi nga ma jox lenn rek laa ci am lu ma lu ma xaw a métti moo di bu ma ko waajoon tey nga xam kon tey nga xam ni sëñ Touba sëñ Béthio du moroomu kenn te ci rajo laay wax ci ay télévision laay wax te bu ma ko waxee Serigne Saliou woo ko ko wax ca loolee lay jogi ba wax ko bambi caama ko jur taawloo ku ñuy wax mambenda sama ndey teg ci sàmba lawbe mi ngi tudde bërëm dëkk bii teg ci soxna teg ci gile teg ci Cheikh Béthio teg ci Kumba Sall Mbay mi mu tëddee way juru gi sa gile teg ci Amad Jëy Ciwun teg ci Yaasin Joor Siga teg ci Kumba Tayba ab seex la woon benn seex bi dafa teel a seqeeku caatloo jëm ju ñu naan muritun tafsir afisul quran buñ ko doon yamale ci loolu danañu ni ndey rek bu ñu doon jël sëñ Béthio di ko tagg ci ndeyam tey jar nañu baas fii ba biir mbuur ndax jigéen ju baax taarix indi na ni jigéen la woon yoo xam ni benn yoon la masa laajub jamono di dox ba bi muy mujj ñaareel eh, caatam ñu di ko wax ne kumba tawat dab ko muy jamonoy guerre ba te boobu àddina neexul soxna Bambi nekkoon soxna su wéradi biñ ko hospitalisé Thiès ba teg ko docteur Carvalho dafa yónni ci kuli ni leen bu ngeen demee nee leen ku di cuut na ñëw seet si Bambi Thiam ndax li ko day se mu dund waxtu yu néew la te booba moyen de transport yi melul nii ku di continuer la mu doon liggéey ñu ni ko ku di yow la ñuy waxal xanaa mënoo déggoo li la waa ji wax mu ni ceel ci ma ngoon ca jataay ba daani ko kuli nee nañu la Bambi Thiam li ko dese lu néew la jógal seeti ko te ko mu ni ko fenn laa déglu bambi caam du ma jaral seqi tànk ak morom ma ñu ni ko li nga yam foo ko teg mun leen damaa xam ni bambi du dee mukk te lekkul ñaqu njabootam loolu buñ ko yemale woon ci loolu xam ni góor gu jara sant la ci ndey waaye ndey ju baax joojee jural ko loolee lépp ba mu ànd ak Serigne Saliou Mbacké le 17 avril 1946 un an après la guerre mondiale boobee jamono melu nii boobee dëkk bi neexul waaye sëñ Béthio sëriñ Saliou def ci moom loo xam ni foo mase toog moom di nga jàngaat ci moom lu baree baree bari te kenn jàngatu ko ko dul sëriñ Saliou booba murit melul nii ndax ñun dootuñu ay gonete ci yoonu murit lañ juddu muy jëwriñ universel Moustapha Cissé daaru salaam Matlabul Fawzeyni ni bëgguwut am jox Serigne Béthio may na ko soxna naa Faatumata Jàllo may na it ma seen Jàllo daaru salaam Matlabul Fawzeyni ni Atepa Faatumata toog daaru salaam Matlabul Fawzeyni fii mi may na it Mohamed Diop daaru salaam Matlabul Fawzeyni cité ouvrière Diourbel soxna Awa Seen Daaru Salaam Matlabul Fawzeyni Fatick may na it Mamadou Faye Daaru Salaam Matlabul Fawzeyni Njaay Fatick jëwriñ Seynabu Mbuub Daaru Salaam amul xalaat Gosaas may na it jëwriñ Abdoulaye Mbaye Daaru Salaam Cité Sotiba Pikine maam Fatou Thiam Daaru Salaam Matlabul Fawzeyni Yoof may na it Ahmadou Seen Daaru Salaam Tataguine soxna Ndey Astu Fay Touba Ñaaxaar Serigne Béthio nee na na leen ci barkeb Serigne Sami على مفاق وغناء إلى الذي كنت بسرك أرسلا سيدة لمرسلا على مفاق وغناء إلى الذي كنت بسرك أرسلا ابتدى لمرسلا على مفاق وغناء إلى الذي li am kilifay li am solo boo ko amee am nga solo yaay rabbana cey sëñ Saliou sama waaje yow Mbàkke doo absent déedéet yow Mbàkke doo absent déedéet sëñ Saliou doo absent déedéet su ma jiitoo su ma demee ma dëpp jël si leen ni Sëriñ Saaliw sunu sang bee ni bu ma ba gis sa tumba leen ma dëpp jël si leen ni may yee ni sëriñ bu mel nii ngeen ñoo ko am kii sëriñ bu mel nii ngeen ñoo ko am kii Sëriñ Saaliw wóolu wóolu jur ba jox la ruyee teral nanu ne sagal nanu ay way ne teral nanu ne sagal nanu ne sigil nanu Sëriñ Béthio amul morom raw Sëriñ Béthio sañu mbi soxna Ayda Dala ya ko jël ba muy naw yaay ki def ba mu raw Sëriñ sëriñ bee ko sang bi soxna ay dëkk dara eh man dégguma dara kat soxna man dégguma dara kat. soxna Aydatu dala bëgg. yaa ko jël ba muy ndaw. mooy ki def ba nga raw. sëriñ bee ka sang si jën ci nga ko daawal. di leeral di dënn moon. xoo ba kat ko ne nga. soxna Aydatu dala bëgg. lamp baabul muridiina. mo jàpp ca loxom ba. daa di koy wan yoon. soxna Aydatu dala bëgg. Eh, mu tegu ca nit du ca jug tey ndigal masu ca jug lépp ngi sàkku sa mbég soxna ay da tun dala bëgg mu tegu ca ni du ca jug tey ndigal masu ca jug lépp ngi sàkku sa mbég soxna ay da tun dala bëgg eh ndeke cu ñay yoon ba seen saaliw di dëkk ba ndeke dëggay yoon ba soxna ay da tun dala bëgg eh naan bëgg te dëgg la bëgg te bëggantu la dala bëgg te dëgg la bëgg te bëggantu la eh dala laa bëgg te dëgg la bëgg te bëggantu mbëggeel bu dootul dañ soxna ay dutu ma ne ndeke ya baadam muur yaag di përëb eh ndeke ya baadam muur ndari ndari ndeke ya baadam muur eh ndeke ya baadam muur eh mësul dañ ci di ko jëm soxna ay dutu sunu yaay sunu ndey soxna Mboose Thioune soxna Aïcha Thioune di sant bu baax ci kàddu yi ñu ngi jooyee ak cant suñu sang bu tedd bi moom sëñ Bàcco di ñaan jëmum ji ñu miin bu yàgg fi lool ba doon kéemaan di ko santale Serigne Saliou ci bisam bii muy le 17 avril nga xam ni ak bu jot ci waxtu wii lay wootee cant gi moom du jóg ci cant ndax def na sant Serigne Saliou muy diineem waaye gii day goo xam ni day marqué saa su ne daje mbaak Serigne Saliou fataset ci région région de Thiès tay nag muy 73e édition bi ñu defee ko nii mu ko daan defee mu mel ni tey ma nga fa Gawdo di sant Serigne Saliou woote cant gi foofee waaye doon teew gi mu nekk foofu teewul it mi ngi fii suñu biir ci biir këram bu tedd gii di Madina Salaam ndax kat ñu ngi fii ak suñu universel soxna Aïda Saliou mii nga xam ne da koo def jëmi boppam ne ko yaay ci man képp ku ko def dina nekk fee mu nekk fii mi ngi fépp mooy bu baax ci nii yëf yi demee ndax kat waxtu bii fii la ñu daan fekk ñuy dégg kàddu yu tedd ya mu koy jooyal Serigne Saliou ci nii mu ko def ci kanamu àddina def ko ko mu ànd ak moom 73 ans de compagnonnage bu mu xëy may jëmmi boppam ci te Serigne Saliou kat ku ne Serigne Saliou ne Serigne Touba ndax Serigne Touba moo ne li xaadati ujuur wal masaalihu bi tey wal gës bii way nii Serigne Saliou di wax ni moom mooy Serigne Saliou kon ku dem ba Serigne Saliou jox la jëmmi boppam jii di Serigne Touba kooku am nga ndam. ba jar naa woote di sant saa su ne moo ñu dajale fii tey jii cant gii mu amee Serigne Saliou ndax kat taset la woon le 17 avril 1946 ñu nekkaat fi tey di ñaan mu di ko def ay ay ati ati ati at at ñu yàgg koo ànd ak moom sax ci ak taalibe ñu ngi koy santale Serigne Saliou bu cant gi dayoo ba mu mën a am moom rek ko mën a jox ba tax ñu ngi santaat bu baax suñu teew fii université Soxna la ñu ngi sant bu baax yow ci nii nga ñu uufee uuf mbokk taalibe yi ndax kat sëriñ bi danaa jiital suñ kanam muy lu ñu neex lool waaye nii nga ko doxalee kat santaat nañu moom na mu daan mel melaat na ni tànk kanam sëriñ Tuubaa yi feeñ na ci ba tax ñu ngi ci sant bu baax xéewal yi dara manqué wu nag yi xar yi giléem yi ginaar yi lépp loo xalaat rek luy jëm ci bernde ndax cant kat bernde la sëriñ Saliou wax nee na ren bi togg say ñam yu neex te bari di ko séddale te doo ci am xëcc ak seen moom ñëpp am nañu barki Serigne Touba ku ñëw di nga lekk lii ñu fiy euh, servir ci subaat léegi wax dëgg yàlla mën naa def ay fani fani fani ñu koy xéwaloo te du jeex santaat nañu ci sa taxawaay bii lépp rafet na sant nañu ñun ay taalibe lañu te suñu bàcc lañ gëm te moom la ñu fas yéene àndal faw ndax dimbali nañu ci ci dimbalam waaye kat lu neex Serigne Bacco ci loolee la ñuy ne te lii moo ko neex Serigne Bacco daa bëgg maanaam yoonam wii moom ñu dooni taalibe te moom lañ fas yéenee doon faw barki Serigne Touba santaat nañu ci nii ñu ko àndeewee sant nañu de saa su ne moom yaa ñuy woo yaa ñuy wax li li li li ñuy def yëpp maanaam dara umpuñu ci yëf yi waaw te nii rek la Serigne Bacca bëgg sant nañu barki Serigne Touba Serigne Bacca daa jiital waaye lii waykat bi wax léegi ba nga doon lay suufu këram sa nekkate boobee dalay may lay boobaat léegi tokki woo jëf joo jëf ñu ne guléet te loolu sëriñ bi la ndimbalam la dalaa waajal ca waajtaayu yi moo tax tey jii lii mun ko loolu rek la demee sëriñ Tuubaa bi demee saa su ne li mu naan sama tey junne day gàccal sama déw te yoon bi su noppee yées yées yeesalu Serigne Bathio bii nag daa fës loolu yokkute yi ñu ngi koy yëg ñu ngi sant ñu ngi yokk barki Serigne Touba ñu ngi yokk ci fànn yëpp ñu ngi gën a yees ñu ngi gën a xam ki ñu àndal ndax mu nee sul xam lépp ci moom ndax Serigne Saliou mooy suñu borom mu nee su koo xam waaye nag dees na ci xam saa suñu xëyee mi ngi ñu yokk ci ndimbalam saa bu ñu xëyee mi ñu ñuy yokk ci mi ñu yokk si suñu xéewal mi ñu yokk si suñu wér mi ñu yokk si suñu mucc dàmbe na fépp sant nañu ko ñu ngi koy ñaanal daal jëmmam ji ah sëñ Béthio yàgg fi te wér sant nañ bu wér ñëpp a ngi sant xol yi sedd na bëgg nañu sant nañu la yàlla nga fi yàgg te wér sëñ Béthio moom kàddu yi su ko daaneel ndax suñu waajur yi tedd yi dañ fay toog muy soxna Mboose ak soxna Aïcha te ni ko sànq jëwriñ univers waxee dañoo jiitu ci kër yi boobaa léegi ñu ànd ak ñun uuf ñu waaw def ñu ñu ay moromi soxna ay doom lañ ñu def uuf ñu ànd ak ñun te boobaax léegi mbokk taalibe yi ñëpp mën a seere seen taxawaay ci wetu sëriñ bi ku ñëw danañ ànd ak yow danañ dox ak yow doxinu taalibe ndax fii loolu rek moo fi am te ñoom noonu lañu àndee ak ñun santaat nañu ci taxawaay bi santaat nañu ci ànd gii nii ngeen àndee ak ñun te lépp di rafet jërëjëfati sëriñ Xaadim sëriñ Saliou sëriñ Béthio jaamu sëriñ Saliou yàlla na la fi yàgg te

mbokku taalibe maa ngi nuyu ñëpp jiital sama sang bi moom Serigne Béthio Gaye mu Serigne Saliou sama sag bi sama ndam li sama mucc gi sama tawféex gi sama xéewal gi sama lu ma xamtukoon Serigne Mbacke sama maa ngi koy santaat bu wér ngi nuyu xalif général des Mourides sëñ Mountakha Mbacké ko ñaanal mu yàgg fi loolu te gën a wér di ñaanal njabootu Serigne Saliou gi leen siyaar di nuyu njabootu maam Cheikh gi di nuyu mbooleem këru diine yi bàyyiwuma kenn te di leen seereeloog sama cant ci sëriñ Béthio jaamu sëriñ Saliou maa ngi nuyu bu baax suñu waajur yi fi toog muy soxna Mboose di soxna Aïcha ñoom nee nañ leen waxaaleen seeni kàddu di bu baax jël universel soxna Adja Saliou Thioune moom sëriñ Béthio di ko bëggee bu baax tey sant bu baax Serigne Béthio ci ànd gi di nuyu bu baax universel soxna Batoor Saliou Thioune Touba Kër Serigne Touba di sant bu baax Serigne Béthio ci ànd gi di nuyu bu baax suñu mag yi suñu ndey yi nga xam ni Serigne Béthio daf ñoo boole ñu ànd ak man ci liggéey bi ñoom it waaw ah, di seere ñoom it seen njàmbaar ak seen passif ci liggéey bi ñu sëriñ bi boole moo ngi sant bu baax tey day dama luum waaye lu ma luum luum du ma sant sama sangu bi maa ngi koy ñaanal te di ko ñaan sàkku yàgg boobu jamono boole ko ci barke seen sang bi sëñ Béthio day tey sëñ Béthio waaw tey sëñ Béthio moom day ñëpp ko war a sant waaye dama cee raw maa ci raw bu ne nag ak ndox la waaye bëgg naa ndax fi mu ma jaarale li mu ma defal ni mu ma def fa ma jëlee fii mu ma indi ak fa mu ma yóbbu hmm, aka aka tumuraanke aka jombe waaye jëmmam jee jombe tey saa su ne bu ma neexee xandaalu waaye tey bu ma neexee xandaalu ndax li tax mooy dama ami mbokk ñu dëkk di ñëw nag waaye tey dañoo ñëwee noo xam ni mosu ñoo ñëwee nii te ñoom ñëpp ñu teew fi nag dama bokk ak ñoom deret ñu xam foofee ñu bokkoon nekk ñu xam tey jii fii ma Serigne Béthio yóbbu waaye tey tey bu du woon ak Serigne Béthio wala loxo dem gémmiñ te du ànd ak tibb wallaay tey bu ma taxawee fii di ndam ak a sago damay sant sëriñ bi jubluwuma ci sax nag ndamu ndax booy ndamu day fekk nga defal sa bopp waaye man mayuma sa bopp man sëñ Béthio ma defar te moo ma defar waaw soxna Dia yenn sëriñ Saliou nee na diggante cant akub waaye nag ak cant moom daa féete kaw lépp te ku dul moom sëriñ Saliou li may dëkkoo di saxoo di ñaan sëriñ Béthio mooy man ne bëgguma xamati te bëgguma beew waaw ndax xam naa kii ma defal te mooy sëñ Béthio moo ma defal te moo ma defal man doomu séeréer ak pël laa doomu séeréer ak pël foofee laa juddoo diggante boobee laa juddoo waaye Sëriñ Tuubaa daf ma faa jaarale jaar-jaar la ci man waaye man mooy sama borom te mooy sëñ Béthio sëñ Béthio waa àdduna ñu may seetaan mbokku taalibe yi sama mbokki deret yi maa ngi seeraloo ñëpp sant gi ma sant sëriñ Béthio di ko ñaan ak taalibe bu ànd ngor gu ma ko toppee moom sëñ Béthio barki sëriñ Saliou maa koy sant bu wér luum naa de billaay luum naa ndax gii sag gii ndam doon sëriñ Béthio jombe na ndax sëriñ Béthio sëriñ Saliou wallaay soxna laa nuru naa ko lool nuru naa ko lool waaye la ca biir ku dul sëriñ Béthio mi ko def xamu ko nuru naa ko lool nag ndax nag maa ngi pudaru maa ngi tagalu maa ngi solu waaw maa ngi takku waaye nag lay sëñ Béthio lay Soxna Aida loolu sëriñ Béthio moo tax maa ngi jiital samay kàddu di ko tuubal lool ci lu ma xam ak lu ma xamul te maa koy sant maa koy sant cant koo xamante ni lott naa ci lool waaye damaa fas yéene rek gore sama diggante moom tey ñaan ndimbalam ak yërmandeem ngor gu ànd ak taalibe topp ko ni ma ko war a toppee te liggéeyal ko defee ko ni mu ko bëggee te bañ koo defee ni ma ko bëggee maa koy sant bu wér koy sant lool tey jii di 17 avril muy daje ba daje bi 17 avril 1946 ak 17 avril 2019 di 73 ans de compagnonnage diggante Serigne Saliou ak Serigne Béthio ñaari leer ñaari jëmm genn leer seen daje boobee nga xam ni tey moo waral ndaje gi ndaje fii tey ci dëkkam bopp dëgg boppam bii nga xam ni fépp ci àddunaam moom sëñ Béthio mu nga ca Bordeaux di fa sant Serigne Saliou mu ngi fii fi sant Serigne Saliou waaye yemu ca mu ngi partout le monde demee ba Chine fekk fa ñuy sant Serigne Saliou bés bi tey damaa tudd rek Chine waaye États-Unis monde entier bi. waaw biir réew meeg bitim réew fépp ci àdduna foo dem fekk fa daaray sant Serigne Saliou waa kër Cheikh Béthio tey bés bii di bës boo xamante ni nit ku ñuul mu ngi koy mu mu mu ngi koy fete nit ku weex mu ngi koy fete ndax kat fi may wax ak yéen amul benn xeet boo xamante ni nekk fi. xëy na dañoo dajee ñun ñii gis nañu ay ñu ñuul lañu waaye américain yaa ngi suñu biir waaw waa Amérique ñu ngi fi waa France ñu ngi fi waa Chine ñu ngi fi waaw sëñ Béthio daal amul benn doom te bu ñu ne amul benn doom ki ko def mooy Serigne Saliou mi nga xam ni amul moroom ba tax na mbokku taalibe yi moom de ak taalibe de lu jam la ak taalibe lu sew la lu ruqe la lu xóot la waaye ku dul moom sëriñ bi mënu ko def lu jàmm ba tax na ñoo koy sàkku ci moom di sàkku ndimbalam ak yërmandeem ndax ba muy waxtaan ak sëriñ Saaliwu sëriñ Saliou ne ko julli lakk julliwul lakk mu ne ko am ah, mbàkke kon julli lakk julliwul lakk mu ne ko waawow mu ne ko am ah, mbàkke lu ciy pexe mu ko pexe amul jàpp ci sëriñ Touba moo am waaw nee na pexe amul jàpp ci sëriñ Touba moo tax ñun ñii nga xam dañoo am ndimbal lu sëriñ Saliou ak tawféexam ñun ñii nga xam ne Serigne Sall dañoo noflaay maanaam daf ñoo may noflaay ndax université Serigne Sall Samb mu ngi koy waxtaanee ne Serigne Saliou ca Bordeaux la ko waxtaanee boobu ñun ñoo nga Bordeaux mu daal ne sëñ Béthio daal ne Serigne Saliou de ba mu ne képp ku jàpp ci Serigne Béthio di nga ma noppal tey jii ak ëllëg gën jëm daal ne waaye jàpp ci sëñ Béthio sama ndimbal la sama noflaay la. waaye ndekete boobu la muy leeral mooy Serigne Saliou ku am ndimbal ak noflaay moo la ko may ndekete boobu du da nga jàpp ci Serigne Saliou maa ci sëñ Béthio mooy noppal Serigne Saliou wala mooy noflaayam déedéet ndekete yow taalibi bi nga xam ne am nga ndimbalu Serigne Saliou ak taw fee xam jàpp ci Serigne Béthio yow yaa am noflaay fii ak fañ jëm nag waaw ndax sëñ Abdoulaye nee na murit bu ñu jagat jagatee takk ba mu dëgg takk ci jaar war gas pax ba mu xóot war ko cee yoor nee na buñ la ca yooree nee boo mënoon a jóg buñ ne la moomalee keneen ku dul Serigne Touba nee na boo mënoon a jóg doo jógaale bant yet nee na jaasi ngay jógaale naka Serigne Touba moom ñëpp. moo tax moom gi ñu sëñ Béthio moom dañoo neex du ñun nag ñoo ko moomale suñu bopp sëriñ Saliou mi ñu moom te sàkk ñu moo ñu moomale sëñ Béthio moo ñu digal ne nañuy jébbalu ci sëriñ Béthio te di ko tudde doom moo ñu digal it ne def leen sëriñ Béthio muy seen yitte bari na rek may waaye dama ne kun fayakoon gi waaye kun yàllaa ko moom sëriñ Saliou nee na sëñ Béthio bés ni ki tey jox naa la kun fayakun képp ko amati aajoom bu bu ko diisee na ko faj yow sëñ Béthio del dogu ndax loo dogu ma fekk na ci kun nag yàllaa ko moom moo tax ñun ñi ànd ak moom nañu xam ne suñu bajuk aajo suñu mbir mu jub suñu naflaay àdduna gi ëllëg gën jëm sëñ Béthio ko jox te sëriñ Saliou ko jox te moom lañu ñu booleel waaye dafa ne benn cëru yàlla wàcc sama wanag sëriñ Saliou moo ne sëñ Béthio benn cëru yàlla moo wàcc sama wanag ba ma gëstoo nee na ko gisuma mbokk gisuma taalibe gisuma doom yow laa gis yow laa ko jox kon sëñ Béthio la benn cëru yàlla waaye yàlla benn cër la nag dama ne laa ilaha illallah dara amul lu yàlla yàlla du ay juub dañ naan yàlla yonent bi Serigne Touba yàlla yonent bi Serigne Touba waaye yàlla yonent bi Serigne Touba waaye genn leer la waaye waaye du ñetti leer waaye li fi sàkk li fi sàkk ñetti téeméeri junni at boobu nee na Adama ak amul nee moom mu ngi fi moom Serigne Touba ak lu ko jiitu juróom-ñaar fukki junni at. jaamu na ko yàlla te boobu aadama ak awa amul waaye koo koy kan kon Serigne Touba mooy yàlla rek la mën a xam waaw tur woowu rek la mën a xam waaye la mu doon la mu doon du nit mën a tudd ndax nit xamu ko loolu laa mi ñu nit du ko tudd ndax lay Serigne Touba nit xamu ko. ñun ay mbindeef fi dañ ñoo sàkk te Serigne Touba nee na moom jurul kenn te kenn juru ko kon da koo soob mu am ay am ay feeñuwaay waaye bi lay Serigne Touba du nit te mooy suñu waay ji mooy Serigne Saliou Mbacké université Soxna Dia mu koy wax léegi. baytam boobu mu wax nit xaalis ku jóor wal ma saaliyu bi tey wa gis ba in nii saaliyu Serigne Touba nee na maay saaliwu moom matam gi asaalihal la si ñu kamilul amal nee na gi mooy Serigne Saaliwu nee na mooy mottali yéeneem Serigne Touba borom kaala gi borom kaala gi Serigne Touba borom kaala gi wallaay moo moo seexaloon mag ña mag ña te bu ma nee mag ña bindaay bu ñu tuddee maam Cheikh Ibra Fall Baabul Muridiina wallaay tudd nañu ñëpp Lamp Fall kooku bu du mën moom wallaay du ñu xam Serigne Touba wallaay kon du ñu jariñu Touba moomu moo woon mag ña moo defoon ca mag ña la mu defoon ca ñoom Serigne Saliou Serigne Touba dane damaa fas yéene yeesal sunnus Muhammad mooy lislaam waaye it ba ko defee ba noppi yamu ca daa xàll yoonu murit seexal mag ña def ci ñoom cërug yàlla waaye Serigne Saliou mu feeñee di dëgg-dëgg Serigne di mat gi di kamaal gi di la ñu xamul di xuwa ba mu dikkee day na fas yéene yeesal yoonu murit daan na jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la Serigne Touba daan def ca mag ña waaye dama ne ki mën a def li Serigne Touba defoon ca mag ña koo koy kan ñun ndaw ñii ñun ndaw ñii ak jamono ni mu tas tasaarowee jamono jii nga xam ne axru zaman la boo juugee mbon mbon juux juux baax baax danañu jël mbon nga ba mu jeex jël nga ko sopp mbon Serigne Saliou dikk xam ne axru zaman lañ toll muy digge ba mu wàcc sapp Serigne Béthio benn cheikh ci jamono l'unique cheikh contemporain ndaxte def naa ci yow loolee ñuy wax ak ceex kon la mu def ci sëñ Béthio bokkul ak li ñuy wax seex loolee ñuy wax ak ceex yaay man te maa yow la ko wax. sëñ Saalum ne ko Mbàkke euh, sëñ Béthio ne ko benn lañu moo Mbàkke lu di ak ceex mu ne ko dooloo mën a xam waaye na nga jàppee sama diggante mu ñaari ndab ndox nga jël waat ndaa tànk ci lii. di sotti ci lii ne ko nag mënoo cee xam lu dox yi ci diggante ñaari ndab yi na ko sëñ Béthio mu ne ko Mbàkke mu ne ko di nga gént dañ di nga gis ak say di nga dégg ak say waaye loolee nu mu rëy rëy na nga ci diggante ñaari ndab ndax li ma def ci yow ku dul yàlla sama borom xam nga ah waa Serigne Saliou bu defee ci sëñ loo xam ne ku dul yàlla sama borom xam ko waaye koo koy kan moo tax wallaay coow lay bëri rek sëñ Béthio 46 ba tey te faw la 46 ba tey te faw la madat la walla war wi dem la nee na ko sa mbir sëñ Béthio daal lëkkaloog mbirum sëriñ Tuubaa wala sëriñ Saliou lay wax nee na ba sa mbir yow sëñ bi daal lëkkaloog mbirum sëriñ Touba li fekk mbirum sëriñ Touba ngi dox sa mbir dox te mbirum sëriñ Touba du fi jóg faw la sëñ Abdoulaat jàmbaar ja borom fit wu dëgër wa ne ko sëriñ Béthio yàlla sama borom de xamal na ma ni sa xol bii sëriñ Touba ci ne sëñ Béthio ne ko Mbàkke day maa ngi santaat sëriñ Saliou ndax yaa ngi may dëggal sëriñ Saliou mooy dëgg-dëgg sëriñ Touba mu ne ko waaye noppil waaye loolu yaa ko sañ a wax ndax yow lañ ko wax loo waaye yàlla sama borom weesu na man foofu xamal na ma ni sa cër sëriñ Touba lañ ci mooñaale waaye sa deret ji deretu sëriñ Touba ci raw waaw léegi ku sa xol bii sëriñ Touba na ci sa cër yi ñu mooñaale ko cër cërug sëriñ Touba sa deret gi deretu sëriñ Touba waaye kooku yaay kan moo tax walaay duñ tee wax ndax dëggay dëgg te Serigne Béthio dëgg waaye dëgg Serigne Touba gi dañ ko dëggal dañu ko dëggal ah waaw dañu ko dëggal ah, waaw dëggal dëgg dëggal dëgg waay dañu rey tey dajal mucc nga. dañu rey tey dajal mucc nga. sëñ bi cooy dëkk. dañu rey tey dëkk. dëgg la sëñ bi cooy dëkk. dañu rey tey dëkk. sëñ bi cooy dëkk. dañu rey tey dëkk. sëñ bi cay dëgg. dëgg rek kay dëggal mucc nga. sëñ bi cay dëgg. dëgg rek kay dëggal mucc nga. sëñ bi cay dëgg. dëgg rek kay dëggal dëgg. sëñ bi cay dëgg. dëgg rek kay dëggal mucc nga. sëñ bi cay dëgg. dëgg rek kay dëgg. waaw kon. yaa ngi loolu la. nañ ko ñun ñii sëriñ Saliou Thioune ñu mu yàgg jamono lool te boole ko góor moom day sa way wii nga way te sëñ Béthio a ci bëgg mii mu ci bëgg walaay lépp mooma ba may lay këram këram nga waaye taalibe gi daa jiitu loolee lépp damay jébbalu gi sëñ Béthio fukki at ñaar laa ak 12 ans waaye gars yi yëf daa commencé firéeku nag waaye du tey ba may jébbalu gi sëñ Béthio golf croisement Serigne Béthio kër Soxna Mbosi mii laa jébbalu gi sëñ Béthio kon dëgg la fukki at ñaar boobu laa am 1993. 93 2003 wallaay fooguma ko woon ndax am naa fu ma jaar wallaay wutuma ko woon ndax li ngay wut day fekk nga xam ko waaye xawma ko woon wallaay sàkkuwuma ko woon ndax xawma ko woon waaye ay dogalu Serigne Touba mënuma ci dara waaw mënuma ci dara waaye nag neex na ma te gënal na te it nangu naa te ragaluma ci dara it nag te duma ci daw dara nag noonu la demee sëñ Béthio ba may jébbalu ci moom xaw moon naa xëy doon soxnaam moo dama koo xamoon fukki at ñaar sama xel la cee nekkoon ay dogal la ñuy dem ba 2003 waaye nekk naa ko fi ci gàmmu gi bu ma ci dellu si waat 2003 la ma def soxna walaay 2000 laa commencé lay kër këram gi 2000 laa commencé lay këram gi di ko bale di ko lay di ko fóotal di ko paaseel di ko toggal togg ndongo yi jëm ci daaray Serigne Saliou yi waaye billaay boobu ba ma koy def xaw ma woon ne lii moom ci fekk ba ma koy def day ak bëgg la ma roof ma bëgg ko gëm ko te xaw ma lu mu doon may dem ba mu boole ma ci njaboot gi dem ba dégg universel laata universel dem ba dégg jëwriñ ndax jëwriñ jantuma xwaa la ma def 2004 de 2006 ñu sañ ci Madina Salaam bi mu def ma jëwriñu Madina Salaam 2014 néegu Soxna Mboose ca Njurul mu def ma jëwriñ universel 2016 ca yoonu Linguère ba ca tali bu metti ba keroog ba ma tabbee ci tali bu yees bi laa dégg yaay man maay yow universel soxna botoor woo ma dina ko wax ma naan ko li ngay wax mooy lan naa ma waaye ndokkale billaay boobu maa ngi ci nelaw ndax maa ngi ci oto bi nekk ci liggéeyam bi waaye ndokk ba ma mayee lay ndax boobu fekk ba ma tëdd di nelaw te bu ma fekk ma tëdd ma xam ne coobareem la waaye ndokk ba ma dimbalee ba boobu tëdd may nelaw ñu dem ba tey jii ma nga ca góorloo suñu sàng bi aka tedd aka gën aka màgg kooku moo xotti baax moo xar baax moo xotti baax. waaw. sëñ Béthio baax. mu jaral na ma kay mu jaral na ma jiite looju cantam gii di sant Serigne Saliou Mbacké ci dajeem bii ak Serigne Saliou bii nga xam ne moo waral man boog ak ku ko moo waral ma doon nit ndax mënoon na maa def ma la janax yi du ñu bindeef kaña yi du ñu bindeef yàlla leen sax moo nguur du bindeef dafa am bakkan yàllaa ko sàkk waaye sant naa ko bi ma defee nit sant naa bi ma defee ku nitee def ma jullit def ma murit def ma cantaakoon liggéeyal yàlla maa koy sant bu wér xam naa ni cant gi du jeex waaye maa koy sant ci mbooloo mi mu ñu booleel waaye di ci jiital soxna yu baax yii njabootam bu tedd gii nga xam ni dañoo ànd ak moom liggéey bi di ko jaamu di ko liggéeyal muy suñu ndey yu baax yii di aawa njëkk ci kër gi muy soxna mboose cuun juuf cuun waaw di jëmm ju baax waaw ñuy sant bu baax sëriñ bëcc ci boole gi ñu boole ñu ànd liggéeyam bi soxna Aïcha maam kan cuun moom it muy suñu ndey di suñu ñaareel waaye moom it baax lool ñu ànd liggéey bi di soxna Batoor universel soxna Batoor Saliou Cuun moom mi ñu nekkal fa sëriñ bëcc ca Bordeaux muy jàmbaar lool ndax daanaka léegi mu def fa ñeenti weer cinq mois moog sëriñ bay nekk ñun dañuy jaabante rek maag soxna jaay dama ko dikk su na damay dem mbooloo ma sëriñ bi dénk ñu ne ko toog toog fii bàyyil ñu ñu dem mu jàmbaar lool mu jàmbaar lool teewul kat ma nga fa sëriñ bi waaye teewul mu ngi doxal mbooloo mu ko booleel ñu àndee liggéey bii nag boobu ba léegi ci jëndum nag yi ba tey jii ñoo àndee liggéey bi lu ma yëkkati rek maa moom a ko àndee universel soxna Adja Saliou Thioune mii moom it ak mbooloom nga xam ni boobaak léegi moom it ñoo àndee liggéey bi muy ci nag yi ba tey jii te fu ma dem bu fekk ma fa fu ma toog mu toogandoog man naa ma loo wax rek dangaa baax rek waaye sëriñ bi dalaa cëral nag waaw dalaa cëral waaye wax sa cëru morom du wàññi sa cër dara waaw sëñ Béthio da leen a cëral te ba muy njëkk di cëralaate ca jeex ga yow mii la ko njëkk def waaw yow mii la ko njëkk def nga wane nag say preuve ndax boobaa léegi bàyyi woo te doo bàyyi soxna Batoor waxi nopp moom it wane ay preuve am te boobaa léegi bàyyi woo te du bàyyi mukk waaye nag sëñ Béthio dogal li mu dogal mu neex leen ngeen ñu ngeen ànd ndoog man liggéey bi mu rafet lool tey taaru bés bii te billaay day gën a neex ndax guddi ñu ngi jëm ca bâche bu mag bi bâche bu yes peq bi nga xam ne ku dul moom jagoowu ko mooy Serigne Saliou waaw ñu àndee liggéey bi mu rafet lool te yemu leen rek ci joxe njëgu nag yi dañoo àndee lépp ba ci liggéey bi dara sooxewul sëñ Béthio di sant di mbég mbégam mu rëy nii mu am ci liggéey bi nii mu doxee ci nii mu rafetee waaye lépp mooma moo ko taawul boppam moo ko doxalal boppam ñun ay pion lañu rek waaye sant nañ ko ci doon gi ñu doon lantinoor bi mel ni kuy doxal te fekk moo doxal maa ngi sant bu wér maa bu wér bokk taalibe yi maa ngi kuréel yi te muy lenn benn kuréel te kenn ki moom ko muy sëriñ Béthio te ñun ñëpp mu boole ñoo moom maa ngi sant bu wér ci nii ngeen àndeek man liggéey bi bàyyiwuma benn commission muy boucherie bakki sëriñ Béthio muy condiment muy collation muy bâche muy bâche bi bâche muy sécurité muy nettoyage muy accueil muy café muy muy muy muy waaye cay jànkatu xasaay bi waaw ak kaamil yi lii sëñ Béthio ko am waaw sëñ Béthio ko am ñii mokkal ngir jàng mu tegu te bu ngeen ubbee kaamil yi fii bu leen neexee léegi ngeen ngeen dóor fi junni léegi wàcc fi léegi junni te bu dee njàng mi mën ngeen taxaw di woy di di jàng fii ba ginnaaw suba te junniy kuréel ay junni junni junni mën nañu jàng di dend te kenn du ci pett bi sa morom ndax mokkal waxtaankat yi waaw maa ngi sant bu baax Serigne ci ànd gii ngeen ànd man liggéey bi maa ngi bu wér waykat yi werekaan yi waaw werekaan yi journaliste yi maa ñëw waaw ah, waaw ndax boobaa léegi kat ñoo àndee liggéey waaye duma fàtte de waaw gitt waaw Cheikh Mbacke Cheikh Mbacke Thiam waaw waaye Serigne Mbaye Cheikh Mbacke yi dañoo bari waaw Cheikh Mbacke Fall ngeen di wax Cheikh Mbacke Fall waaw ak njabootam soxna Maane mu sëriñ Béthio maanaam Cheikh Thioune ak njabootam waa këram waaw waa kër yaa soxna ñu ngi fi gis naa fi Mapenda gis naa fi Adama waaw gis naa fi njàngaan waaw moom maa ngi santaat bu baax duma fàtte it ah, sécurité bu mag bi mooy Serigne Béthio waaye waa gendarmerie ah gendarmerie seen escorte bu mag bii ñu ma defal te rafet lool te jombee loolu te sëñ Béthio waral waaw maa ngi maa ngi nuyu seen njiit te di sant bu baax waaye sapeur pompier waaw ñoom waaye booba léegi ñoom ñoo àndee bés bi police eaux et forêts awaw ah, moom koor yi yëpp Senelec awaaw waaye duma fàtte mukk seen njiit bu mag gi di suñu njiitum réew di président de la république du Sénégal monsieur Macky Sall ak mboolem gouvernement bi ndax kat nii fi demee kat waaye yombal gi ca moom la jógee ne amaana moom kat mooy suñu njiitum réew te nangu nañ ko te neex nañu ndax dogalu yàlla te dogalu yàlla ko nangul na ngay sonn yàllaa ko dogal te neex nañu te lii bu ko nanguwul woon kon duñ ko defee nii kon ñoo ngi sant bu baax taxawaay bi waa Touba ah waaw waa Touba yi duñ leen fàtte ñoom ñëpp ngi fii di waa kër Serigne Saliou waaw ñoom Moussa Niang Baye Moussa Niang waaw waa kër Serigne Saliou ak délégation bi mu àndal rëy lool ñoo ngi santaat bu baax moom di sant ci mbokku taalibe yi ci suñu mbokku bopp yi ci mboolem kër yi ñoo ngi santaat bu baax di ñaan Serigne Béthio yàgg fi te gën a wér waaw waaw sëñ moom jantam gi daa dàmbe ndax moom fu ay nag war a dem yóbbu na ko fa fu aw nag it war a dem yóbbu na ko fa bàyyiwul benn këru diine muy Touba ba ci jumaa jumaay njaareem ba ci jumaayi sëriñ Saliou ga maanaam mooy jantu max waa waaye it jumaa ju mag ji ci barab boppam bi ak mboolem barab yi téeméeri nag la yóbbu Touba ak li koy toog jumaay njaareem ñeenti nag kër xalif général des mourides waaw bàyyiwul bàyyi faal yi bàyyiwul njabootu Serigne Touba gi waaye fii ci dëkk bii di man na salaam dëkk yi ko wër amul ci tund bi amul fenn foo xam ne bàyyi na ko waaye ñun ñii di ay taalibeem sant nañ ko waaw ndax ñun ñii kat nag fàttewuñu dañoo seet du bañ doyal kër yi foo dugg mu ngay suus dara manqué wul te lépp mooma su ma ne moom mooy Serigne Saliou moom na li ko gënal mooy di ko tuddal sangam bi Serigne Saliou Mbacké borom jàmm ak jamono borom jaam ñi borom jaam yi ñun de moo ñu moom ak keneen ku nangu waaw waaw ñoo koy sant bu baax Serigne Béthio yàlla na fi yàgg te gën wér tey leer nañu ne daf fi yàgg day wér Serigne Béthio daf fi yàgg te day wér barki Serigne Sall ma nañu gën a laxasaayu wallaay mu nekk Bordeaux ak mu nekk Jérusalem mbaa mu nekk Tokyo moo ci bokk yem sëñ Béthio ci xol sëñ Béthio ci xol leneen xaju ca te moom nag xol bu mu ne leneen xaju ca waaye leneen lu ca bëgg xaj nag mu génn bàyyi la loolee ñu ñaan mu sax ci suñu xol yi faw waaye yemuñ ci na sax suñu cër yi waaw nañu sax ci moom faw rek di ko liggéeyam ñoo ngi koy ñaanal mu yàgg jamono cantam gii muy sant Serigne Saliou mu yàgg koo def mu yàgg koo jiite te ñu yàgg koo ànd ak moom. di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu di ko wax waa Sénégal yëpp ak mboolem ñi nga xam ne ñooy suivre télé bi. te di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal sëñ Béthio jàmm mu yàgg fi lool te ak wér. mais lan moo ñu day léegi moom ñëpp xam na li ci xew liñ ciy fàttaliku mooy daje sëñ Béthio ak Serigne Saliou ginnaaw bi nga xamee ni fàttaliku moom lu yàlla digle la ngir nu koy def. wa dhakkir fa inna dhikra tanfaul muminina di nu fàttali itam ñu baax di nu fàttali itam boppam ndax fa zukuruni azkurkum washkuru lii wala takfuruni wazkurullaha zikran kashira wa sabbihuhu bukratan wa asila wazkur fil kitaabi idrisa innahu kaana siddihan nabiyan wa rafanahu makanan aliyan yooyu yëpp ay fàttaliku lu yàlla def la te di ko def lu 17 avril nag daje sëñ Béthio ak Serigne Saliou soo gisee ñu tànn ko ci mbooleem daje yi fi jot a jaar yëpp beneen daje xewaat bu àddina di fàttaliku ba nga mën fee gis nit ñu toll ni ñii nga fi gis cant gi mën a àgg tey dans le monde entier ñëpp di ko célébrer fii ba bitim réew fii ba Chine fii ba Bordeaux partout dans le monde mooy njariñ gum amal jaam ñi la njariñ li nag euh, bari na ba mënee su lim waaye nag solo si li yàlla yéene woon ñëpp ba tax mu yónnee leen muhammadu rasulullahi salaay salaam wax ko ni ko wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin ak inna ko shahidan wa mubashiran wa nazira waaye wa daahiyan ilallaahi bi isni wa siraajan munira doon lamp bi leeral di génne nit ñi mina zulumaati ci lëndëm yi ila nuur di leen mat jëme leen ci ak leer mission boobu yi nga xam ni suñ Tuubaa bi mu wàccee itam moom la joxoñ ne nasaafatuhu kulli min allahwi taharat wa sunnatahu insha rabbi ubayyanu nga xam ne il est le revivificateur de la tradition prophétique yeesal sunna xotti yoonu murit muy yoonu wut ngërëmul yàlla ba tax mu ne isil muridu laa yuridu abada ayra redar rahmani xay su xasada lool yi mu bëggaloon jaam ñëpp nga xam ne mooy ngërëmul yàlla ba tax mu ne minallaahi waaye ilallaahi damaa jóge ci yàlla di fa dellu ana muridullaahi ñenn ma dem laa woo 17 avril nag mbooleem lu yonent bi yéene woon xeet wi ak mboolem lu sëñ Tuubaa yéene woon addina ba tax mu ne lawlal quraan wal qaddiisu wa manaafi'al wara maa bittu fi dunya laylatan waaxida mbooleem njariñ yooyu yëpp la dajale la sëñ Tuubaa yéene woon ba tax mu ne asaalihal lazi yukammilul amal sëñ Saliou mottali sama yéene matal ko matal samay jëf 17 avril daa matal yéene jooj yi matal ko ci ay jëf yu ne fan te sëñ Saliou mi ngi ko defee ci li gën a fés ci jëmmi sëñ Béthio muy ndaw yum taqale ngërëmul yàlla ndax nee na ko ku jibbalu ci yow am ngërëmul yàlla muy loo xam ni nag lu mësta feeñ la sañ-sañub suñ tubaa di ñu fàttali itam la suñ tubaa waxoon ne inna allazi min al ilahi xustu xaaba anil kawni wa fii fustu les bienfaits que je vous ai apportés d'Allah n'existaient pas dans l'univers avant ma venue kon ci tënk 17 avril day bis bu amal njariñ jàmm ni nga xam ni fii ba ñoo xam ni mënoon nañoo dund ba faatu duñu xam euh, yoonu lislaam walis ñuy doon ay murit kon ñu tuddee ci ponk yi. Mhm. ndax li waaw ndax sëñ Tuubaa euh, wàllu jàmm ñi rek ko fi indi sëñ Tuubaa bul fàtte ni mission bi fi indi nit ñi bokkul ak bi ko fi indi day lu rëy ndax yàlla moo tànnal nit ñëpp mission wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni waaye sëñ bi ma ëgsee daani man nag bu dul woon jariñ mbindee fi du wàcc nga xam ne daa yor njariñ te waxoon nañ ni an naf'u wa durru min arrahmani wa ma min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha wa ma bikum min nicmatin fa min allaahi sëñ bi nag bi mu ëgsee dani za nafain damay njariñ waaye bila dararin wax ni kataballaahu tabaraka wa taala anna katiba hasil urufi yu jaawirullaaha tabaraka wa taala fi dunya fi dafxi wal jalbi arbaa miati sannatin baxda haasal min al xaqil mubin yëg ni yàlla dogal na ni ki bindu bind bi day dëkk ak yàlla fii ci àddina te da ko conjugué au futur damay dëkk ak yàlla fii ci àddina fi dunya ñeenti téeméeri at muy at yoo xam moog yàlla rek ko xam di leen xëccal njariñ it di leen daqal lor te ki lay wax wax ji bu wax ji daanoo dañ koy yóbbu ca penku jumaa ja Sëñ Tuubaa bi jumla ji mujj bind laa lay wax lii la mujj bind daal ne baax de xësal xatti lay tàmbale ab liggéey te baax de xësal xatti ñu ngi koy yóbbu ca penku jumaa ja kon ma nga lay bëgg a wan ni mbiram luy sax di wéy la ndax waxoon na ne lam tanxu ni muqaddamatul mawti nekk loola nag mooy dëppoog lin xaadatil ujuru wal masaalihu bi tey wal jës way nii saalihu programme boobu nag sëñ Saliou mi ngi ko defee ci biir 17 avril mooy daje gim dajeeg Serigne Béthio fële lépp mate fële lépp mate ndax kullu shay'in yuraddu ila aslihi bépp mbir dañ koy delloowaat ca cosaanam daje gi Serigne Béthio dajeeg Serigne Saliou may na ko ci àddina loo xam ni fawxal maraam la loo xam ni kenn mënu koo sàkk ba am ko kenn du ñëw ci Serigne Touba ne ko Mbàkke def ma may sa jëmm kenn du ko wax Serigne Touba Mbàkke dimbali ma ku ma gis dem àjjana kenn du ko ñaan Serigne Touba déedéet am na yooyu kenn du ko ñaan moom la Serigne Touba nii yàlla may na ma loo xam ni ngën gi sàkkutif la ak loo xam ni daa kawe ak sàkkutif manees naa sàkku te du te kenn du ko sàkku ndax ab taalibe du mës a bëgg doon sëñ bi di set avril nag daa feeñal ci ndaw ñi loo xam ni sëñ Béthio ginnaaw bi ko sëñ Saliou defee nii mu ko def mu sol dàllam dugg ci àddina am ci ndigal nag ndax duggal ci réew mi la ko wax jàngale nu ab murit di mel cëg njëlbeen nag mu nuru woon loolu loo xam ni am po lañu ko jàppe woon ci réew mi ay millions yi nit yu kenn xamul nu ñu toll jébbalu ci am ci ngërëmul yàlla jàngal alxuraan mokkal ko jàng xasaay di Sëñ Tuubaa ko doon ay murit boo leen nattee ci àndaar murit ak murit saadi moo mati ko sëkk Serigne Saliou def leen ay cantaakon ñu samp ay kër xam nga fii mu xewee Madinatu Salaam la xam nga fii mbuur la hectare yi nga fi gis amul kenn ku fi jënd parcelle yëpp sëñ Béthio ko def may ko taalibe yi may leen yu soxna dëkkal leen jox leen ni liggéey ñuy xëy di jariñ société bi waaye doon ay murit doon ay saadix doon ay cantaakon loolu nag mooy résultat bi nga xam ne moom la diine yàgg yéene ci àddina ndax euh, yonent ba yàlla mos a yónni projet de société ngay defar mooy defar nit defar nit kookii nag ëllëg yomal xiyaam suñ mbécco bu jugee ak ñim defar ndamul rasulullahi sa alayhi wasallam lay doon ndamul Serigne Touba lay doon ndamul képp koo xam ne mës ngaa wàcc di jéem a defar nit lay lay doon moo tax di set 17 avril ñu seppi ko ci daje yi def ko daje boo xam ne nag daa jur taarix ndax daa amal njariñ jaam ñi yi amal njariñ jaam ñi daa bari daje yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Seydina Ababacar daje bu amal njariñ jaam ñi la daje Seydina Chouaib ak siib daam Moussa Soxayb ma ko jox yatam ba nga xam ne moo tax mu dégg fan falaxa fa kaana kullu firxin ka tawdil azim daje booba daje bu am solo la daje sidna Xadir ak Moussa fa wajada abdan min ibadina aataynaahu rahmatan min hindina wa allamnaahu min ladunna ilman daje bu am njëriñ la daje sidna Omar ak rasulullahi sallallahu alayhi wasallam suñ tuwaa nee na bihi tazza diinul Mustafa is yu zazzaw mooy bis nga xam ne daje ba nga xam ne moo tax lislaam saaw ci àddina ndax daa fekkoon ñuy jaamu yàlla waaye di ko defee ci ruq ba mu fekkee ñuy nodd ca tax ya moo toj tax ya ñuy yuuxu allahu akbar ca kaw kon amal na njariñ jaam ñi ñu dajeeg Sëñ bari na waaye daje Cheikh Ibra Fall lañ ci seppi murit yëpp xam ko ndax daje Cheikh Ibra ak Sëñ Tuubaa daa jariñ murit yi waaye Sëñ Saaliw it ñi dajeeg moom bari na waaye boo gisee benn daje biñ ciy fàttaliku àddina sépp xam ko mooy daje booba daa amal solo àddina sépp nag njariñ loolu nag moo tax tey ñu seppi ko mu di ko sant Serigne Saliou xam ne dajeem ak Serigne Saliou moo sabab lii lépp loolu mooy bisub 17 avril sant boroomam googu ibaada la moo féete kaw na ci xeetu jaamu yàlla yi waaye ak jaamu yàlla la waaye xam ngeen ni yàlla ak cant meloo la ci moom a asukuru sifatun min sifatillah sant gi yàllay sant boppam nag kooku du mbindéef ndax yàlla séqut ak kenn ak jaamu kon loolu melow suñu borom la ci yàlla ak yàlla jëla bokk moo tax cantuk sëriñ tubaa bokkut ak cantuk mbindéef yi ndax moom dani ni yàlla yàllay sante boppam rek cant googi la ma jox ab xaytu lil baax yi sukuuran xat sadar min faydihi baynal xiyaari yabtadir mu ni sëriñ becco mbubbum sëriñ tubaa la waaye jagleel nan la ko looloo waral cantam gi tàbb ca googa cant léegi nag bis bii di 17 avril mu def ko nag mooy nday sunu cant bis bii nag li ma ci bëgg a wax lu gàtt la mooy bii bis résultat bi lislaam la lislaam wares na ko cee ndokkeel waaye résultat bi yoonu murit la yoonu murit wares na koo ndokkeel ci 17 avril waaye itam résultat sëriñ tubaa la Serigne Touba dafa waat boppam ci bis bi waaye résultat la càddina ñeenti xeeti résultat yii ma la wax ci laay tënk sama wax bis bii ndamul lislaam la résultat nag bala nga koo xam da ngay xam li tax a jug lislaam lan la lan la lislaam di wut ci àddina boo xamee li tax yàlla indi lislaam ci kaw suuf ba nga xam ni objectif u lislaam nangam la loolee nag nga xam ba xam lan la ci 17 avril participer lan la ci def loo xam ni bu doon lu ñuy joŋante la lislaam jël na kubba waaye lan moo ko may kubba neel 17 avril tax na mu jël kubba waaye ni mu ko defee ci lislaam itam résultat la boo xam ni ndam la ci yoonu murit waaye itam bis la boo xam ni dafa feeñalaat mbirum Serigne Touba ndax yoonu murit it bokkut ak Serigne Touba ba tey Serigne Touba yi borom yoon wi waaye yoon week boroom du benn waaye ni mu doonee ndam ci yoon wi noonu it la bokke ci li Serigne Touba mandargaale lim doon moom di si rafet waaye namul àddina sépp la soo ko waxee nag tëléera la goo ko dana am kum jaaxal a ah, seen bisub sëriñ ba kat nee na mooy résultat bu lislaam ñoom daal jël nañ seen bis ba ne mooy résultat bu yi mooy résultat yoon wi sëñ Tuubaa wane na ci boppam waaye résultat àddina la boo ko defee nag nu waxtaane loolu tuuti te yeggale programme bi ne ko soxna si bëggee jëmmi lislaam nee naa la 17 avril ndamam la tey dañoo war a ndokkeel lislaam ci bis bi santale ko di siyaare mboolem koo xam ne rek fekk naa la fi ci guddik sëriñ Saliou gii waaye gis naa fi sëñ El Hadji Bousso léegi maa koy sant bu baax te di ko siyaare te xam ko bu baax muy sëñ Malaaka Bousso maa ngi koy siyaare bu wér man nag 17 avril sunu borom dogal na maa ngi ciy soog a ñëw Maroc nag daanaa dem 17 avril ca waa Kër Cheikh Béthio waaye fii ci senegal maa ngi ciy soog a ñëw te 17 avril yàgg na lool waaye maa ngi ciy soog a ñëw man li ko waral nag Baye Fall bee xewle soxna Ayda Baye Fall bi waaw damaa bëgg damaa bëgg rek wax ji leer ndax man dama dul koo xam ni. damaa waye di du ma xooxi waye di man damaa gëm Cheikh Ibra te muy dëkk ci man waaw ay soxna Ayda ñëwuma ci moom ni ngi ñëwee ci moom déedéet xel comme laa nekkoon di fóotal dongay Serigne Saliou Mbacké man daari Serigne Saliou laa nekkoon di fóotal dongo yi lu ma dox ci lu ma xamul man dama ne Baye Fall bi moo xewle Baye Fallu Serigne Saliou moo xewle soxna Aida loolu laa wax dama laa wax ne la boo xewlee murid saadix yëpp ngay gis murid yëpp lay gis xam nga lu tax ma waxtaan tuuti ci Serigne tubaa soxna Aida bu xewlee day gis murid saadix xam nga lu tax Serigne Touba nee na inna lasina saarahoo li xidmatihi fa lahumoo diyaaru warsal janna sëñ bamba nee na ñi may bëgg di ma liggéeyal di gaawantu man sëñ bamba sama liggéey bi suñ déggee sama tur bi gaawantu fab seeni mbir di ko jëf ci man sëñ bamba bu ñu amee or di ko jaay ndax man di ubbi seeni compte banque di jox man sëñ bamba di dajale di ma man sëñ bamba mooy ñi nga xam ni saa raxoo ni xidmati fii la sëñ wax sëñ tubaa nee na ñooña fa may boolee seen xol ya fa lahumoo ñoom diyaaru war sab janna ay dénd laan li defal man sëñ bamba ay dénd ci biir àjjana dund yooyu nga xam ni moom la soxna Ayda am ca àjjana dund ya nga xam ni këri soxna Ayda ca àjjana moo dàq kër yi ngeen di gis fii ndax fa naxu moo diyaaru war sa janna maa ko njëkk jàppe ci màggalu sëñ Tuubaa gi ma toog dégg ñu naan soxna Ayda ci màggal gi te màggal gi ku ci raw yaay raw ku raw ci màggal gi yaay raw te gin naa ci Seera Fall Murdina wax naa ko ni ko gis naa la lu mat 10 ci ay ngëneel suñu borom wan ma la yow soxna Ayda te dajeewu ma ak yow mi wan ma ne yow mbiri Seex Béthio lu bañ suñu borom baras na ko sa jëmb ji da nga koy doxal yow da ngay dem barki Seera Faal da ngay dem te man du ma waxantu dama bëgg du ma waxoon dama bëgg YouTube jël ma rajo jël ma télé jël ma ñu ne soxna Kini ji li moo ko wax Baay Faal bi xanaa xamu ne ku Seex Ibra fees ci sa bër koo gisee si day ndaw sikkiwuma lii may wax te werantewuma ko Seera Fall daa wóolu suñ Modou Mbaye Issa wóolu suñ Yaaram Mbaye wóolu suñ Masamba Ndiaye waqi wóolu suñ Taïba Ndiaye ne ko Taïba mu ne ko Fall Taïba mu ne ko Fall mu ne xam nga soxor lu muy def ci nit déglu li ma lay wax de Cheikh wax de Taïba mu ne ko Fall mu ne ko ndax xam nga soxor lu muy def ci nit maam Taïba ñëw ne ko déedéet Fall Cheikh ne ko Taïba mu ne ko Fall Taïba mu ne ko Fall mu ne ko yàlla bu rëddee nga bañ. murdeet nga bañ tey ba mu ne ko faal ma ko ñetti biril bi sa bàmmeel la koy def su la dugalee ci bàmmeel rëdd ca kaw ne soxna Ayda soxna Ayda cuun ca kaw ca kaw ko ca kaw nga xam ne ba malayka yi ñoo la koy nettali sa biir bàmmeel ne la soxna Ayda ngi ci kaw waaw loolu loolu loolu yéen ngi soo gis yéen a gis Baye bi moo xewle Baye Fall yi ñëw Cheikh na day sot domp sax ci sot la bokk Baye Fall bee xewle may wax la ne dafa am mbir yu xew mbir yoo xam ni dafa mat a xam wax naa ko sànq ne ko fit la ñu war a am war a am ñun murid yi wax yàlla gi Sëñ Tuubaa doon fit fit rekk a des murid bu xuusee am fit xuus ci Sëriñ Tuubaa màggal gi fi ñu ko jëlee daa leer màggal gi du ay làmbatu de ma ne màggal gi du ay làmbatu am mbokkum Serigne Touba moo xam ne mës a nangu gëm sëñ Bamba gëm yombul ma ne gëm yombul nangu yombul dama ne gëm dafa am mbokkum Serigne Touba mu mës a gëm sëñ Bamba jàngal nañ ko gëmul Serigne Touba ñu waar ko gëmul Serigne Touba ñu bind ay bind jox ko ko ne ko sëñ Touba ko bind taxul mu xam Serigne Touba keroog ba mu tobbee ci ba mu tabbee daa dem ba buntu këram mu toog. mbokkum sëñ Tuubaa mi yow yem ci Cheikh Ibra daal dina Cheikh Ibra Fall sama bunt loo ciy def maam Cheikh Ibra ne ko ginnaaw waa àdduna ngay wax sëñ Bamba xamoo ko danaa la yéen néew boo xam ci bar sàq ma la sëñ Bamba néew boo xam te xammi ko xam ragal yàlla am xam ak jubam néew boobu laa yee ci bar sàq néew bu wax la kuy sëriñ Tuubaa xanaa bu la néew waxee kuy sëriñ Tuubaa di ko xam mu ànd ak ci armeel yi armeel yi njaarim maam Cheikh Ibrahima yar ko sëñ Matar Penda Dieng sëñ Matar Penda Dieng mi faatu am bàmmeel fukki at la ko maam Cheikh Rafal yeel Matar Penda néew bi la ko mu ne ko wuyu sëñ Bamba néew bi dekket loolu du musique du amul musique amul raison sëñ Bamba bul tënk musique bul tënk raison amul fa sëriñ bi yee ko Cheikh Ibrahima yee sëñ Matar Penda sëñ Matar Penda dekki Cheikh Ibra ne ko Matar Penda la mu ne ko Mbàkke mu ne ko waxal jëmm ji kuy sëñ Bamba sëñ Matar Penda la dekki xool mbokkum sëñ Tuubaa ne ko maa ngi nii yeewu ba sàq laa yeewoo waaye ba sàq yi riir mu ne ko la xew mu ne ko ba sàq suba ak ngoon jërëjëf Sëriñ lay dégg jërëjëf Sëriñ Tuubaa lay dégg ba sàq jërëjëf Bamba rek lay dégg ba sàq waaw jërëjëf Sëriñ Bamba moom la sëñ Matar Penda lay dégg ba lii mu taxawal ay at yu bari ci kanam mu bokkaat ko ak ñun ñépp ci dooley Sëriñ tubaa ci barke yonent bi yàlla na ko ko yàlla defal di nuyu bu baax soxna Ayda bi nga xam ni tabaarakallaahu yàlla dogal na mooy jëwriñu jotaay bi ndax lu nekk day am yoon te sëriñ bi liggéey bi daf ko teg ci loxoom loolu itam ñun réeriwuñ ko xam nañ ko te it mu séq ko ak njabootam gi yépp muy njaboot gu jigéen gi di njaboot gu góor gi ñii toog di soxna mboose soxna Aïcha ak soxna ajaa ñu bokk ak moom jotaay bi ñii di magam ñii di rakkam mu ànd ak ñoom ci liggéey bi ci ni ko ko cheikh bi tege ci loxoom mu di ko liggéey ba liggéey bi yegg fii rafet nii mu mel mu mel ko suñ ñëwee dañ koy wax gàcce ngaalaama kuy wax fii na wax jàmm ndax boroom kër gi ci jàmm la sose këram boroom kër gi ci jàmm la liggéey ba liggéey bi yegg si fii te ñii dañoo yàgg te dara masta damm dara masta yàqu programme la nag il faut mu am yoon wu ñu koy teg liggéey bi mën a dox loolu la cheikh bi def kon nag soxna Ayda ci yow lañuy jaare nuyu ñépp ndokkeel la démb ci guddi deux heures du matin la oto bi gaare sama buntu kër ñu wàcce fa nag wu jar cinq cent mille six cent mille boole ci la mu war a àndal yépp nag ni ko cheikh bi daan waxee la ca war a ànd yépp na ca ànd te loolu du man rekk la ko defal mais Sénégal kilifa diine yu bari ci këru diine yu mag yi démb soxna ay doom teral na leen kenn nu umpalewul cant gi ci Sénégal ci kilifay diine yi te cheikh bi noonu la daan doxe innama al muminuuna fa aslixu bayna axawaykum Cheikh Béthio cant gu mu mas a def am na ca ndigalu Serigne Saliou waaye it daana ko wax ne ko nang ko de na nga ko defe nii defe ko nii defe ko nii defe ko nii mu jaar ko ci noonu cant ya di dox senegal di bokk ci cant gi ndax cant gi du ñuy toog ci baas bi mais àdduna bi yépp war a bokk ci cant gi loolu moo tax cant gi jóg Sëriñ tubaa universel la moom moom ñépp ko bokk dafa am ñaari doof ñu ñu tuddee doof sax laa wax ñu daje ci benn photo bu mel nii kenn ki di xool photo bi ba yàgg mu ne kii daal fu ma ko romb day taxaw rek fu ma ko romb rek day taxaw kii ki des na ko kii bu toogee rek àdduna tukki mu ko kii buy toog rek àdduna bi di tukki ñooñu duñu duñu dof waaye ci lii taxawaay bu rafet moo sabab ñu di la ndokkeel rafetal nga yaatal nga liggéey nga parce que ku fi ñëw ñëwaat fi xam nga ne lii yokku na ku fi ñëw ñëwaat fi xam nga ne lii yaatu na. may ñaanal suñu xalif général des Mourides mu yàgg fi lool te gën a wér sëñ Muntaxa Bachir. waaw di ñaanal sëñ Sidi Moxtaar sëriñ Tuuba yokk ay leeram ñoo ngi santaat bu baax moom di wax ni rekk bëgg nañu lool santaat nañu sëriñ Béthio ci bësëm bii nga xam ni bés bii nga xam ni da ciy sant sëriñ Saliou Mbàkke bésam yépp kat ak cant la ci moom waaye bis bii nag day bisug daje gi di 17 avril 1946 fataset tey di 17 avril 2019 fii ci dëkkam bi ji Madinatu mu fi sant Serigne Saliou Mbacké nga xam ne dañ naan tey jiikat ma nga fa Bordeaux di fa sant Serigne Saliou waaye tey fii it mu ngi fii ci Madina di fi sant sëriñ Saliou waaye mu ngi fépp it di fa sant sëriñ Saliou ndax li ko waral mooy moom day fépp ci àdduna am na fa daaray sant sëriñ Saliou Mbàkke waa kër Serigne Béthio foo dem ci àdduna fekk fa daara ji kon tey jii day bis boo xamante ni yamul rekk fii ci fii ci madinatu wala fa Bordeaux waaye fépp la fii ba Chine ñoo ngay sant Serigne Saliou Mbacké kon ñoo ngi santaat bu baax ci daje bii di bëgg lool ci mbooleem kilifa yi fi wax ak ñi bëgg wax tey muy mel ni jotaay bi xat lool ñoo ngi sant bu baax ci ñëwin bi ci wuyusi bi ndax kat euh, bu leen neexoon kat ne sëriñ ba ci ma nga Bordeaux kon xam naa ni ñëw bi du ko mate waaye nag moom daa wuutewul dara kon ñoo ngi sant ci ànd bii ngeen ñëw àndee ko ñun ñu santale ko Serigne Saliou moom dey bég na lool ndax moom de bu sañoon ñépp jariñu ci Serigne Saliou ndax Serigne Saliou mooy njariñ li mooy njariñ li ànd ak lor li loolee Serigne Touba wax ne sama loxo bu tuut bii boo ëllëgee ku mu seddul da ngay fande loxoom boobee mooy loxo boobu bii di loxo sëriñ saaliw waaye ba tey jógu fi ndax mooy sëñ Béthio kon mooy loxo bi nga xam ni mooy sëddale loolu nag ay dogal la ndax sëriñ Béthio kat yàgg nañoo wax ni kat ne moom cosaanoowul ak cëriñ day doom maamu kulli ak maam bi Thiam ne moom cosaanoowul ak sëriñ waaye nag sëriñ Touba sañ-sañ la sëriñ Touba coobare la moom tënkuwul moom lu ko soob lay def kon coobare sëriñ Saaliw mooy sëñ Béthio moom la soob mu def ko muy jëmmam ndax sëriñ Saaliw kat euh, sëriñ Touba waaw day dëgg sëriñ Serigne Béthio day sëriñ Saliou sëriñ Saliou mii ngi naan doomi sëriñ Touba ji te ndekete yoo mooy Serigne Touba ndax kat Serigne Touba moo ko bind moo bind ni mooy saaliw te fii ñu toll ci jamono ah loolu nag ñu bari dégg nañ ko. wala yamuñ ci dégg ko bu ñu yëree téere yi jàng nañ ko Sëriñ Tuubaa ko wax ne mooy saaliwu Sëriñ saaliwu li yéenem gi kon bu dee moom Sëriñ Tuubaa ci kaalaam gi di mu mu njëkk mi moo yeesal sunna Muhammad waaye xàll yoonu murit jël mag ñi def ci ñoom te wax naa ko tey ci suba bu ñu ne mag ñi bu ñu tuddee Lamp Fall Baabul Muridina moom mel nañ tudd nañ ñépp kon bu yeesalee mbubbam Sëriñ Saaliw moom Serigne Touba ne may saaliwu nga xam ni dana woon ku sukkuraam jébbalu sa fa xesitu oom mooy ajjana Serigne saaliwu feeñ daldi yeesal yoonu murit yemu ca kon li mu yeesal ràpp na te it moo ko moom ndax mbubb boo ko moomul àbb ko sañoo ko cuub kon dey boroom yoon wi waaye yamu ca dafa laaj ndaw ñi dana jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la Sëriñ Tuubaa daan def ca mag ña daa tëj ci nekk donte yelloowu ma ko ma barkeeloo ko ndekete yoo moo ko yelloo ndax ki jël li sëriñ tubaa daan def ca mag ña def ko ci ndaw ñi te ne barkeelu la koo koy sëriñ tubaa mooy dëgg dëgg sëriñ Touba kookee nag moom kooki bi mu waxee ba mu waxee loolu yamu ca ndax seexal gi def ci sëriñ Béthio loolee ñu wax ak ceex moo jiitu woote gi mu wootee ci yeesal yoonu murit ak def ci ndaw ñi la sëriñ tubaa defoon ca mag na te boobu day bi mu koy wax moom sëriñ saaliwu boobu sëñ abdulaat moo ne xalif général des murit borom fit wu dëgër wi jàmbaar ju sëriñ tubaa jooji te boobu kat kenn teggiwu ko sëñ Abdou Lahat moo janoog sëriñ Béthio daal ne ko yàlla sama borom de xamal na ma ne sa xol bii sëriñ tuubaa ci ne sëriñ Béthio ne ko Mbàkke de yaa ngi may gën a dëggal ni sëriñ Saaliwu mooy sëriñ Touba ndax sama xol bi ku dul sëriñ Saaliwu newu ci mu ne ko waaye noppil loolu yaa ko sañ a wax ndax yow lañ ko wax loo waaye yàlla sama borom weesu naa ak man foofu xamal na ma ni sa cër yii sëriñ Touba lañ ci moñaale te sa deret gi deretu Serigne Touba ciy dox kon ki nga xam ni xolom bi sëriñ Touba ci ne cër yi ñu moñaale ci cëri sëriñ Touba yi deret gi deretu Serigne Touba koo koy kan waaye nag li ko sëriñ Saliou ne yaay man maay yow firi na wax ci ne ko benn cëru yàlla wàcc sama wanag bi ma geesoo gisuma mbokk gisuma doom gisuma taalibe yow laa gis yow laa ko jox te yàlla benn cër la ne ko sëñ Béthio mu ne ko Mbàkke mu ne ko del doggu jox naa la kun fa yakun képp ko amate aaju bu la ko diisee nanga ko faj kun nag yàllaa ko moom te sëriñ saaliwu nee na may na ko sëñ Béthio kon ba tey day firi yaay man may yow gi kon sëriñ saaliwu bokku ci moom bu ñuy wax course bi moom ci bokkul ci course bi moom moo toog ca gàngunaayam ga waaw gaañeyi course mu xam ki njëkk a teer ak ki mujjee teer kon ñoo ngi santaat bu baax di bég lool ci cant gi nga xamante ni sëriñ Béthio mu ngi koy amal at bu jot di ko sant sëriñ Saaliw te lépp ci mbooloo mi teewee ko te kat ku xool yi fii ni mu demee xam ni wallaay li sëriñ Tuubaa ne sama tay gu ne day gàcceel sama démb moom de tayam ji feeñ na ci mu nga fa Bordeaux di sant waaye ñu ngi fii di ko santale mu demee nii mu demee ñoo ngi koy sant bu wér te di ko ñaanal mu yàgg jamono te boole ko wér waaye di sant bu baax mbooleem njiit yi ci fànn bu ne te di ci jiital président de la république du Sénégal monsieur Macky Sall waaw ndax kat mooy suñu président ab jaam nag li koy noppal mooy nangu dogalub yàlla ku nangu dogal dangay noppalu waaye ku nangul dogal dangay sonn ndax yàlla lu mu dogal jaam tuuti na ci dindi ko kon mooy suñu président wu réew mooy suñu njiitum réew te mu mel ni kat bi ñuy waaj bis bii bind nañu ay lettre teg ko ci yoon nag muy préfet fépp fu lettre bi war a dugg te muy muy moom ci njiitam dugg na fa mbooleem service yi taxaw tem gendarmerie police sapeur pompier moom mbooleem eaux et forêt mbooleem secteur yi taxaw tem te ku xool yi fi ni mu demee xam ni kat ah, wax dëgg yàlla sant nañu waaw sant nañu lool ndax kat daan nañu taxaw daan nañu taxaw lool loq waaye gii taxawaay nag ah loolu ñun mboolem cantaakoon yi ak ñi ñu fekk ci seere nañ ko ba tax na ñoo ngi santaat bu baax tey bëgg lool boobaak léegi sonnuñu tàyyiwuñu boobaak léegi ñu ngi ko ñu ngi ànd ak ñun liggéey bi journaliste yi mbooleem rajo yi ak ci tele yi boobaak léegi ñoo ngi dikk ci nag yee ba ñu ñëwee ba tey jii ñoo ngi sant bu baax mbooleem télé yi ak rajo yi fi daje boobaak léegi di sant bu baax na ci Sen TV ndax kat euh, cant gi ñoo ko couvrir Bougane Gueye dani waaw ñoo ngi sant bu baax te di leen ñaanal seen barab yi yokku yéen ña fay liggéey it ngeen yokku ci bàkkeb sëriñ Saaliwu moom sëñ Béthio maa ngi sant sëñ Béthio nag ci sama mbokk taalibe yi ma booleel te ma ciy jiital ngir universel soxna Batoor Saaliw Cuun moom mi nga xam ni moo ñu nekkal fa sëriñ Béthio di Touba kër sëriñ Touba boobaak léegi ñoo àndee liggéey bi ci jëndum nag ya ba fii ñu tollu ñoo àndee liggéey bi lépp rafet mu nga fa ca sëriñ bi waaye teewul kat mu ngi doxal mbooloo mii mu ko dénk ndax boobaak léegi universel yaa ngi dikk jëwriñ yaa ngi ñëw ñoo ngi àndee liggéey bi lépp rafet te yemuñu rekk ci ñuqi koppar yi waaye dañ cee boole ñaq ak ñuq yi dañoo boole liggéey bi muy organisation bi boole ko ñuqi koppar yi kon ñoo ngi santaat bu baax sëriñ bi di bëgg lool it ci jëwriñ universel soxna Dia Saliou Thioune xel kom waaw moom it day boobaak léegi ñoo àndee liggéey bi ak mboole mi mu jiite di waa Xelkom ci jëf ji ci nag yi tàmbalee ko ci nag yi ba tey jii ba ci bâche bi amul lenn loo xamante ni àndewuñ ko ba ci jotaay yi ndax fu ma wootee ngir yëngal ngir waajal bés bii di tey woo na ma mbaa mu fekk ma fa muy ci biir dëkk bi muy ndakaaru fu ma toogit mu ñoo toog sama wet ñu ànd liggéey bi maa ngi sant bu baax sëriñ Béthio